xanaa di yëkkatiwaat ay kàddu rek e, jëmale ko ci mbokki sénégalais yi e, di wax ne réew mii di senegal ñun ñëpp ñoo ko bokk di wax ne réew mii di senegal ñun ñëpp e, ñooy ñi ko war a defar kon ñu ngi dénoncé waxtu wu nekk lii nga xam ne am na ci fan yii am mu doon loo xam ne nii lu ñaaw la ci gis-gis waaye mu doon loo xam ne nii rafetut ci ñi nga xam ne ñoo wër ñu ci àdduna bi di ñu seetaan waaye it mu doon yàq goo xam ni gu bona bon la eh, ndax eh, yàq loo xam ne nii sa alal la bu dee aw yoon la yaa ci jaar bu dee kaar la yaa ciy dugg bu dee marché la moo xam marché ku ko mën a moom it teewut eh, bagage ya fa nekk yaa koy jënd lépp loo xam ne nii rek ba ci oto yi nga xam ne sax am na ñoo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ak kër yi ngay lakk yooyu yëpp mu doon loo xam ne nii fii ñu toll ak feebar bi am mu doon loo xam ne nii buñ ci boolee teg ci lu mel noonu kon réew mi euh, dana gën a jëmaat ci gannaaw te yaakaar naa ni yéen ndaw ñi réew mi seen réewul la ëllëg yi Sénégal seen ëllëg la kon nit mën naa mars def lu mën di doon waaye yàq moom bokkatu ci wàllu mars euh, beneen bi ci des it euh, ñu di ko leeral fii ñu toll ak fi àdduna bi toll Sénégal di dem ba nga xam ne ñëpp ñu ngi fiy tudd pétrole ak lu mën di doon ñu xool ne sous-région bii ñu nekk tey li fi nekk ci ay terrorisme jëm ci wàll googu kenn xamul nu mu toll yaakaar naa ne ñu mu doon loo xam ne lu ñaa ñoo xam ne nii seen i pexe rëy na lool seeni financement it rëy na lool ah ñu mën a dugg ci réew mi financé fi ay nit wala ñu dugg fi ci nit ñi ñu toll ci ma coow loo xam ne ñoom danañ ci mën a potoxlu man ko attaqué réew mi ah loolu yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la ca ku xool sous-région bi gis ñi ànd ci lii ñuy wax mars ñoom ñu ci bari mën na noo wax ne Sonko taxut ñuy mars ñu ci bari mën na noo wax ne ñoo ñu ñuy wax ay terrorisme mën nañ cee làqatu ba leen bëgg def ci réew mi ñu mën koo def ci réew mi waaye ay samba booy ñu ngi ci yoo xam ne nii dara ñuruñu leen du dul wër di sàcc loolu nag ñu ngi laaj monsieur le président di ko wax ne ko ni ci jël ay matukaayam ndax réew mi dafa am foo xam ne bu fa tolloo menn moom euh, mooy seul comptable ci moo war a jël ay matukaayam ci wàllu sécurité bi kon loolu it ñu ngi koy ñaan mu def ko beneen bi ci des Euh, nan bàyyi xel ne li ma wax rek mbir mi mbirum siwil la ñaari doomi sénégalais yoo xam ne ni ñoo am jafe-jafe ban amee jafe-jafe rek la ca am nag yoon war koo doxal ci yoon moom bàyyu kenn man mii di sëriñ bi it yoon bàyyu ma ndax bis bu set euh, euh, ci gannaaw yu mel noonu amoon na it teewut yoon dafa jëfandikoo ci la mu war a jëfandikoo ci man kon yoon moom loolu tubaab di wax kenn du nekkul ci kaw yoon kon koo mën a doon lu mën a arrivé lu nekk bu ko seqee ñaar ñaari danga da war a dem wuy ji kon loolu it lu mën a xew ci àdduna nan bàyyi xel loolu ndax ponk yooyu moom lañ tëkku mu Sénégal gii kon leneen la ci tegit nga xam ne ñenn ñenn ñi mën na noo wax ne looloo tax ñu yëngatu waaye xam naa ne yàq war tax ñu yëngatu ndax Sénégal gii ñun ñoo ko bokk ndax ki fi nekk di di ko defar ëllëgi si biir it mën naa jeexal keneen ñëwaat waaye fii mu nekk di ko defar ak nekk di ko liggéey ñun ñëpp ñoo ko war a jàppale loolu ñun ndax ñun ñooy ñi koy jëriñoo beneen bi ci des it mu leer na it ne am na ñoo xam ne xëy na jafe-jafe àdduna tax na ñu dugg ci waaye yéen ñi nga xam ne yéenay borom kër yi yor famille bi yor ndaw ñi maa ngi leen di lancer appel ndax lenn lu ne bala muy génn ci penc ma ci biir kër ga lay njëkk tàmbalee kon ndaw yooyu di génn di yoonu seen i doom di génn ci biti lu ne man leen caa fekk ñu ne mën a raaxaloo ci seen biir lu ne man caa fekk na ngeen bàyyi xel ci njaboot gi kookit lu am solo la kilifa diine it mosu ñoo jëg di wax man maa ngi dénoncé waxtu ne am na ñu naan sëñ ah, Mountakha wax na président yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne ni ñoom ñëpp boo leen xoolee ña cay wax ñëpp ay règlement de compte la ñuy def wala ñu doon loo xam ne dañuy santas nguur gi ndax yaakaar naa ne koo xam ne nii da nga fay ñëw ay élection mu ne la demal boole naa la ak sëñ Touba nga dellu siwaat fii ci màggalu Touba mu ne la ñëpp di dégg ah lii nga xam ne ñaanoon naa la ko de may nga ma ko ak loo ca mën a jànkonteel loo ci mën a jànkoteel jooju nag ñëpp de fet fekk na màggal gi bi mu am mu taseeg feebar bii di am ñëpp xam ne baat boobu OMS wala yeneen am na yu tegoon ay nguur yoo xam ne bëgguñu woon benn cérémonie am mu sëñ Muntaxa ne ko la ma may defal nga ma ko ca ngir ñu mën a mottali li nga xam ne moom la ñu sëñ Tuubaa digaloon ca lu la ca mën a fekk rek def nga ko kon ku mel noonu yaakaar naa ne bu ko sëñ Muntaxa joxee ndigal dana ko def yooyu wax la yoo xam ne ñi koy wax ñëpp seen i intérêt tax ci ñoom ñëpp président yi yëkkati na ay teraanga defal leen am na ci ñoo xam ne nii fii ci dëkk bi am na hôpital bu fi am lañ ci am ci ay commission ëpp na un milliard et quelque ca loolu président leen ko jàppale ban am ko am na ci ñoo xam ne liñ leen fi jox ci ay machine moo xam ay tracteur ak lu mën di doon ñu jàppale leen ko kon ñooñu it lu ne président defal na leen ko waaye maa ngi loo xel président ah ñii nga xam ne ñi ngi am ay engagement ànd ak moom parce que nit ki xam ne heure bu ne yaa ngi koy defal ci bis bu set loo ko mën di defal yi du ko gis kooku ku mat a teyel ci ay mbir la ñi nga xam ne it dañoo ànd ak yow di ñëw ci yow naan la diw il faut ñu seere ko wala diw ñu defal ko dangam na nga bàyyi xel ne ñooñu ànd yow ak ñooñu nga xam ne ñi ngi lay xeex guddi ak bëccëg lu ne ñu ne ci plateau yi di la ko wax ñooñu nan bàyyi xel ne ñi ñëw ci yow na la nga jàppale leen wala nga seeri leen na nga jàpp ne ñooña buñ ànd ak yow it danoo am lu lu ni lu ni laq bañ mu feeñ moo tax ñuy seerelu ñooñu waaye képp koo xam ne ni am nga la ngay laq amul bañ moo mu feeñ ah yaakaar naa ne doo fekk koo xam ne di la kontar nga naan ko seere nañ ko jàppale ci ñi ànd yow du dikk ci yow naan leen nañ ko seere wala nañ ko jàppale kon yooyu it maa ngi koy bàyyiloo xel moo mbir mi ca bàyyiloo ko xel li lii am nga xam ne ñett weer ci gannaaw la taxawal am na ci ñenn ñoo xam ne ñi ngi ànd ak moom ca set ga ca war defuñu ko ca mbir mu ne nag boo ko diagnostiqué ba xoolaat ko ah da nga xam ne jig am na ci wala jig amu ci loolu nag mbir mu mooy bàyyi la moo xam ne heure bu ñu toogee danaa ci waxtaan ak moom beneen bi ci des ku mat a tey ci discours yi kii nga xam ne lobby yi am ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi manipulation nit ñi ci wàllu euh, communication ak yeneen ak yeneen lu mat a bàyyi xel la ndax boo jàngatee yi am yëpp euh, ba tax ab citoyen ñu woo ko mu bañ a wuyu ah ne ci yoon wi def ay manipulation ba eggal wëññi ko waat bañ na ko ba image bi ma mujj gis nga xam ne dafa boote ay loxoom mu taxaw mel ne dañ koo manote foofu képp Sénégal yi war na noo mën a jàggat lu bëree bëri Sonko moom ci boppam bu fekkoon ne keroog ba mu njëkkee def discours wax na ne foofu foofu ñu may wax musuma faa teg sama tàgg bu boobaa man mii di wax ak yéen damay nekk ci wetam gëm na lii ñu koy yéen ko waaye ba mu nee nag teg na fa sama tànk man boobu laa noppeen ci wax ja li ci des nag moom allahu ahlam ndax it li may wax waxtu wu ne ku ne mën na laa teg lu ne suñu borom mooy kii atte kon loolu it du ma ci mën a sori waaye li ëpp solo ba ëpp solo mooy nan bàyyi xel ne réew bii di Sénégal jàmm lañ fi soxla kilifa diine yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci waxtu wu ne guddi ak bëccëg la nga xam ne président yi seq na ko ak kilifa diine yi moo ngi koy dox mi ngi koy wax am na communication bu wax ne ci sëñ bi la jógee waaye bi ne ma ci sëñ bi la jógee man comme que gisuma sëñ bi mu wax nit a wax rek ci nit ñu ci bari danoo am fun far ma gëm ne leen sëriñ Touba sëriñ Mountakha Xaadimu Rasuul bu dee wax rek Touba rek taxul muy wax ndax Sénégal gépp ak njabootam lan adduna bépp ak ña fu mu nekk wala ab taali bi nekk wala ku sopp ku wax asadullahi mënoon a jàpp ne ak njabootam la sëriñ Tuubaa de bi mu taxee ci waaxu Moussa Sir irham jamil waraa wax kon gëm naa ne mun Muntaxa bu dee wax lépp yërmaaneem euh, ëmb na Sénégal wala génn na Sénégal kon mun bu ma déggee rek ñu ne euh, ñu wax ne lii nga xam ne mooy am di ay mars fii ci Touba ah, ah bi joxoon ndigal ñu def ko fi ku koy def na nga dem ca ca biti man boobu wax moom mënumaa gëm na ci sëñ bi la jógee donte wax na ni sëñ bi la jógee ndax sëñ bi dina ku ku ko munta def ku ne ku ko munta ñàkk bañ a def na nga génn ci biti loolu moom du waxi sëñ bi sëñ bi ma xam xam ne moo sëñ Tuubaa mat sëkk la gëmuma ne communication boobu sëñ bi dana ne ku ko munta def na nga dem ci biti kon nag mbir yi am na ay lobby yu ci ne am na ay mbir yoo xam ne nit yu mat a jàngat la fii ñu toll nag laaju ko bis bu ko laajee dana am loo xam ne ni danaa ko delluwaat wax ko ndax ñun li ñu ñor mooy jàpp jàppale président ba mission bi mu am mu am ko ca Sénégal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqal ca na jël ay matukaayam ci kaaraange gi parce que nag am na yeneen yu ci rax ca nan bàyyi xel na it am na sous-région bi am na président yoo xam ne xëy na demee na neneen waaye am na président bu fi nekkoon euh, yaay jamaa lañ koy yaay jamaa lañ koy wax ma nga ca fareen ca bu sene bu sañoon it euh, euh, réew mi du am jàmm ci loolu lu ma xam la ndax am na fi ay relation am na fi ay contact ak ñeneen ak ñeneen ak lii nga xam ne mooy terrorisme bi fi nekk kon nag fii ñu toll président matukaay yi maa ngi ñaan yàlla nga jël ko ki nga xam ne it moo sonko ñu bàyyi ko mu dem wuy ji bu ko bu ko sun borom seetalee yàlla euh, la mu doon ak siis yi ñu wax ko mu jeex mbir mi jeex fi waaye nag kenn koo xam ne nekk nga ab sénégalais daal bu la woyee wuy ji loolu moom yaakaar naa ne bu tàmbaleet kanam lay jëm ca ca loolu du doon lu gën maa ngi siyaari ñëpp di nuyu ñëpp di wax ne nan arrêté chantage bi président moom ci jëmmi boppam it na gën a euh, jàpp ci ñi nga xam ne bàyyi xelit ñi nga xam ne waxtu wu nekk ñi ngi ci di ko jàppale guddi ak bëccëg waaye bàyyi xelit it ñi nga xam ne ñoom ci seen jëmmi boppam bu nu sañoon tey jii gaal gi day dégg ñu reetaan loolu daal maa ngi deen koy déggal ci wax ne Sénégalais yi fii ñu toll du waxtu politique fii ñu toll waxtu liggéey la gëm naa ne feebar bii fi nekk bi ko yàlla wàccee ñu bari war nañ cee mën a def jàngat jàngat ndax tey koo gis mi ngi jël euh, ma ngi jël euh, ngalaab gémmiñam nit nag bu fekkee ne dafa am loo xam ne yàlla wàccee na ko ci réew mi ngay foo toll di tëj sa gimiñ ngalaab sa gimiñ ba kenn du mën a gis sa gimiñ kon war na noo mën a delloo xel ci suñu borom ñun ñëpp ñu fas yéene tëj suñu gimiñ yii di ci wax lu baax ci bañ a taal réew mi ma lii de ku ko gis kone xam ne yàlla am na lu wàccee ci ñun ca noppi la nañu tëj yooyu ñun ñu suñu gimiñ kon ñun nan moytundiku wax ji bala ñuy taal réew mi maa ngi siyaari ñëpp di jéggalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu